jërëjëf sëriñ Saliou Salaam ci ubbi bi mu ubbi gitaay bu tedd bi ci jëmm ju tedd jooju Cheikh Mouhamadul Bachir te nu jaarale ñoom tomb yi nu waxtaane ci téere bi nga xam ni sëñ Cheikh Xadim Mbàkkim sëñ Muntaxa moo ko bind mu Cheikh Mouhamadul Bachir fi sutur mu doon lu am solo loo xam ni jàpp naa ne ñi teewe jitaay bi wala ñi koy topp ak fu ñu ko mën di toppee danañ gën a am lu gën a yaatu gën a leer ci jëmm ju tedd jooju niki noonu it sëriñ alxaaj Njaay moom it ci tomb yi ni mu ci jaaree mu doon loo xam ne it mm, lu am solo la ndax euh, waxtaane jëmm ju tedd wala mbind loolu mooy delloo si démb te loolu mooy li nga xam ne mooy wetli ñiy ñëw ëllëg jërë ngeen jëf kon ci kilifa yu tedd yi nga xam ne teewe nañ jitaay bi te koy dara jàll da yàgg ànd ci liggéeyu académie Minane Ba Xadim di ci joxe ay xalaat di teewe jitaay yu baree bari bokk na ci Cheikh Ahmadul Badawi moom Sëriñ Fàllu Mbàkke bokk na ci it Cheikh Ahmadul yi moom Cheikh Mahamadul Fadal bokk na ci euh, Sëriñ Mouhamadou Lo Ngaabu euh, sëñ Mouhamadou Lo Ngaabu Sakinatul Amaan bokk na ci Sëriñ Mouhamadou Mbàkke Abdul Wadud bokk na ci sëriñ Cheikh bokk na ci sëriñ Cheikh Xadim Mbàkke moom sëriñ Muntaxa te mu jiite académie min baax Xadim bokk na ci sëriñ Muntaxa Mbàkke Maam Moor feggoog sëriñ Cheikh ci académie sëriñ Maam Mor Mbàkke moom sëriñ Muntaxa moom it na ci jataay bi sëriñ Bachiru Mbàkke moom sëriñ Muntaxa sëriñ Chouaïbou Mbacke sëñ Mountakha moom it teew na sëriñ Cheikhouna Mbacke Abdoul Wadoud moom it nga xam ne moo jiite lañ naan ilmiya bi nekk ci biir académie Minane Ba Khady moom it mi ngi toog sëriñ Bassirou Diatara moom it teew na sëriñ Moustapha Mbacke sëñ Abbas teew na ci jitaay bi sëriñ Moursada Diop. sëriñ Moustapha Diop sëriñ Moustapha Diop Manar ba tey sëriñ Saliou Salam mu doon def conférence bi sëriñ Sam Masamba Mbacké sëriñ Moustapha Bachir teew na sëriñ Alioune Badara Dieng sëriñ Mouhamadou Sarr ci jitaay bi sëriñ Moustapha Diop soxna muslim sëñ Basiru sëriñ Muntaxa Mbay DM sëriñ Ibra Kane sëriñ Alxaaji ñaŋ sëriñ Guèye sëriñ Guèye Moustapha Guèye sëriñ Mouhamadou Diatra inspecteur sëriñ Mouhamadou Lo ak sëriñ Soda Ndiaye sëriñ Xaadim Diop ministre moom it teew na mu koy ziar moom it membre ci académie bi bàyyi sëriñ Sey moom it teew na sëriñ Moustapha Dieng daarul man xasaayit moom it teew na euh, sëriñ al imam Babacar Mbeng mu ngi ci jitaay bi euh, sëriñ Basiiru Sàmb ki noonu it soxna yi noonu lañ koy bàyyee xel rawatina soxna sedd soosu di soxna Mariam Mbàkke moom ku fonk jitaay bii la lool sax ajuba ju nekk day ñëw teewe ko ñu ngi ñaan moom it mu yàgg loolu tam wér mi ngi feggoor soxna Daba Mbàkke soxna Maymunatu Mbàkke ki noonu daayira bi nekk masamam bind ci daarul mi nan ba tey ñoom ci njiital sëriñ ma ngoone Caam ak ñu nu àndal sëñ Mbay Njaay ñoom it ñu ngi ànd ak ñun ci waxtaan bi eh, noonu lañ jotee liste présence yi ci kilifa yi nga xam ne teew nañ fi ku ñu eh, waroon a tudd ci jitaay bi ci dara jàll bu mu ko dara jàll ci kilifteef it tudd ñu ko ñu ngi ci jéggul kon ñu ngi sant bu baax kilifa yooyu eh, sëriñ Mouhamadul Amin juuf Euh, banque bisis moom it teew na fi waaye duñu ñu fàtte it euh, Abdoul Fattah Gueye TTP Touba Techno Plus nga xam ne moom it band bi nekk ci ginnaaw nii taaral jitaay bi lool moom moo ko barkeeloo ci académie bi ñuy ñaan liggéeyam barkeel ak képp koo xam ni yaa ngi dox jéego boobu euh, kon sëñ bi daa mel ni mën nanoo jàll ci ñaareelu tomb bi muy prix kon jot na ndigal ci ni ñu ko xamee eh, académie nal baa xadim linoon loomil islamiya tey jii di ajjuma tombeek ñaar fukki fan ak juróom ci weeru koor wi ci 1437 ci la académie nal baa xadim fas yéenee tànn eh, ñoo xam ni dañoo bay seen waar ci xam-xam mu may leen li nga xam ne mooy jaayisatu Cheikh Mouhamadul Bachir lil bahs fi turas al muridi ñooñu nag kiñ ci njëkkee mooy ñii mbooloo lañ ndax su ngeen ma mayee rek ma fàttali tuuti te lii nii maa ngi koy def ci ndigalul sëñ naa Abdoul Wadoud ndax laj na ilmiya bi moom moo ko jiite te loolu ñoom ñoo koy taxawee prix yi ñuy maye ci tudde ko jaayatu Cheikh Mouhamadul Bachir niñ ko waxee woon ci njëlbeenu waxtaan wi dañ koy jox ñi nga xam ni dañu yëngu ci xam-xam moo xam dañoo bind ba ràññu ci muy tasaaroo wala dañ cee liggéey ba ràññu ci lool am ci jeexital ci askan wi wala it dañ cee taxawal daara ba daara jooju yaatu ba law ba réew mi yépp gis ci boppam njariñ li matale wala koo xam ni it yàlla da ko wërsëgale alal mu jël di ko def ci toolub xam-xam ba ràññiku ca ba boroom xam-xam yi seedeel ko loolu ci ginnaaw ak saytu ak gëstu ñu lañu baaxoo di jox li nga xam ne mooy jaayisatu Cheikh Mouhamadoul Bachir lil baxsi fi turas al ren nag ñi ñu ko jagleel mbooloo moo xam ne ñu ngi ñu ngi sosu ci tuubaa ci atum 2011 ci li ñu ma jox muy ñoo xam ni seenub yëngu dafa jëm ci bind ci sëriñ Touba akub liggéeyam waaye ñoom dañ ko def di ko nos mu doon ay xasaayit ñu tudde diwaan boobu ad durru nazim at mu jot ñu génn ko wax nañu ma ni boobaak léegi bi ñu ko sosoo génn nañ luy tollook ñaar téeméeri xasiida yoo xam ni mool nañ ko di ko tasaare nga xam ni ñi ñu tudde ay waykat muy ashuara ñi bind ci sëñ bi akub liggéeyam ñu la ya muy li ñuy tëggee way yi ba mu nosu tegu ci xam-xam euh, bu xool yëpp it gis naa ko ci wala yee ci ëpp bokk ma nga ca seen diiwaan boobu di xasida gu nekk dañuy wax ki ko bind wax ci ban baxru la ko la ko la ko la ko way kon ñooñu duru nasim boobu ci njiital sëriñ Moustapha Jaxate kon moom euh, ñoom duru nasim boobu danañ leen jox prix ci turu académie minal barakaati leen ulum waaye di leen ko jox ci ndigalul sëriñ Muntaxa Mbàkke Cheikh Mamadou Bachir ci noonu ci ñu koy jox moom jenn jëmm la ndax mbooloo lañ koy jox walla jëmm kii nag jëmm la joo xam ni moom it kuy liggéey ci xam-xam la waaye def ci lu ràññiku lool ràññiku yi nag li ko ci indi mooy anam ji mu bindee wala li mu li mu yëngoo ci wàllu xam-xam day loo xam ne lu jafe la ak jagleel rek lay doon nit ki def ko waaye du ñépp ay jàng man koo def muy lu jëm ci wàllu astronomie muy ilmul falak ñu koy wax sëriñ Modou Sarr di doomu sëriñ Cheikh Sarr moom sëriñ Mbay Sarr sëñ Moodu Faati Sarr moomu dafa dafay bindkat ni mu bind ci wàllu woowu it ni la bind yeneeni téere yoo xam ni teew na ci jitaay bi am na bu muy tuddee euh, safa shaqima euh, shafa saqima nga xam ni téere la boo xam ni moom nee na médecine traditionnelle maanaam ci wàllu faj ci la ko bind waaye bi mu demee ba jàpp ko bindit dafa dem ci li nga xam ne waaw mooy téere bi Shafa Saqima la ko tuddee am na un am na deux benn baa ngi ni mooy numéro un bi mu muy téere bu am solo waaye façon bi mu ko bindee muy mu bind ko ci bindin wu yéeme lool ndax li mu ko bindee bi mu ci sukkandiku ci suñu garab yi cosaan yi sax ci réew mi ci la ko bind waaye nag da ko tàmbalee ci garab yi sax ci pàkkub tuubaa fi jumaa ji nekk bi ñu koy dagg fa la tàmbalee garab yooyu maanaam na naka las cay fajoo waaye it yàlla di ko dimbali ba mu man koo teg ci xam-xam nga xam ni doonul loo xam daal lu ñu tànd la teyit it euh, ku am téere bi di nga gis ni lii doonul rek luy wër looy wër di laajte ñu naan la dana faj nga bind waaye lu mu teg ci xam-xam boo xam ne boo gisee téere bi nga xam ni euh, yàlla defal na ko ci ak jagleen leneen li ci des li kiimaane mooy li nga xam ne moom la tudde wala moom lañ ko tuddale ndax jëmm ji sëriñ taxa Mbàkke moom moo ko tuddal mooy li mu tudde euh, li ñu tudde euh, almusammaatu bil yawmiya al asriya al xadimiya ab calendrier la boo xam ne euh, gis ngeen ko nii lii ab calendrier la waaye ni mu toll noonu ngeen gis ko daf ko tënkaat ci benn safxa benn page page bii da ko cee tënk ab tënk la ab tënk la benn page la ko tënk te calendrier yi nee na mi ngi ko tàmbali ci l'an 1 maanaam at ma Seydina Isa ganee jamono ba 2175 ci kanam loolu nag li ci yéeme ba tey mooy su indee weeru wolof la muy dëppool ci weeru tubaab dañuy ànd nga xam ni man toog nañ ci ay jitaay ci maktabat Cheikh Mamadou Bachir mu ma koy leeralal te sukkandiku ci safxa bi ngeen gis ci lay sukkandiku bu ma ko laajee bis euh, le premier janvier 1980 da lay wax lan la tolloo lan ci weeru wolof bis ba da koy da koy mën a wax ci te ci benn safxa bi rek lay dëpp lay lay lay la koy wax ci la koy leerale loolu pour wan leen leen liggéey bi liggéeyu scientifique la maanaam mii la mathématique la ay calcul la du loo xam ne lu lu yomba def la euh, jàpp naa ni ci xaj na lu ma mën a leera la ndax am na ci loo xam ne moom moo ko mën a expliquer waaye man sax yëgguma ci mën koo leeral wax dëgg yàlla waaw ndax l'an 1 ba 2175 ci kanam maanaam bis boo ko ci introsé ni ko bis boobu euh, le premier nangam ban bis lay doon dala wax bis ba altine lay doon wala talaata la la muy tombel ci weeru wolof ak weeru tubaab la ñuy tombe yëpp dana dana la ko ca wax euh, ci loolu ren bii muy calendrier bi nga xam ne moom la moom la ci génn muy calendrier bi ñu nekk ren muy 1437 boobu mu ngi nii euh, da koo génne euh, gis ngeen ni mu ko liggéeyee moom it mooy bii ngeen gis bii moom mooy bu ren bi 1437 moo nekk nii nga xam ni at mu jot da da ci génne rek benn bu mel nii la tàmbalee l'an 1 ba 2175 maanaam calendrier ni mu ko defee it man man bi ma ko toppee euh, depuis ca weeru tam xarit wa muharram ba léegi nii bis bi ñu naan mooy première ci weeru wolof dafa amu amuñu juyoo moom moom loolu it kon mel na ni am na tawfeex ci loolu kon sëñ Modou Faty Sarr ñu ngi lay ndokkeel euh, xam naa man euh, waxtu wi mi ngi dem waaye liggéey bu mel nii su ko ku ñuy wax doomi daara defee mooy koo xam ni jàngul ci université ñu man ni la ay doctorat ay mm, euh, nangam mag ay yu yan xamul yooyu moom la am waaye alxuraan la jàng xam-xam ci tubaab yi ba def lu liggéey bu rëy bi damay wax ni liggéey boobu dafa jar fésal dafa jar sax yóbbu ba ci milieu scientifique yi muy académie yi muy université yi professeurs yu mag yi ñu toog ñu gaaral ko ba ñu xam ni maanaam lii mën naa bàyyi ko ku nekk waaye nekkul rek ci université yi ak. Euh, waaw waaw bisu koor bi talaata la moom it la dëppul waaw kon li ñuy wax rek mooy ni amul genn juyoo ba ba le premier ci muharram ba léegi nii xew yi yi ci am ba tey ci biir calendrier bi fexe na ba xew yu mag yi am Touba mooy muy bis yu bis yi nga xam ni dafa siiw ci dëkk bi it bis bu ci nekk moom da koy génne ci calendrier bi nga xam ne calendrier boo xësee am ci muharram màggalu ko màggal gu bu nekk bu ñuy dëppalee ci weeru wolof rek da ngay daal xam bis ba ak la muy tombeel ci ci weeru tubaab kon euh, sëñ Modou Sarr daal xam naa bu ñu doon yaatal ci li mu liggéey dana dana dana gudd lool waaye loolu ab tënk rek lay doon kon ñu ngi lay ndokkeel bu baax a baax a baax ci tur académie Mbacke Khatim di ko jaarale it muy jaar ci sama kàddu xañ na bu bu ñàkk solo lool waaye mu jógee fu kawe loolu moo tax académie yëg am yëg-yëg ci jox la euh, darajey jaayisatu Cheikh Mouhamadou Bachir lil bahs fi turas al muridi kon ci ndigal li ñu jot ñu mën nañoo joxe ni ñu ko waxee ci ndigal sëriñ moo Faati Sarr mi ñuy jox jaayisa bi ci liggéey bu am solo boobu mu def ci al yawmi al asriya muy calendrier yooyu ma doon wax ak Shafa Saqima boobu muy téere médecine traditionnelle bi ci ñaar yooyu ci la ko académie bi jox jaaysa bi kon euh, sëñ bi ki koy jox jaaysa bi euh, sëriñ Ahmadou Badawi Mbacké moom sëriñ Fallou moom moo lay jox prix Cheikh Mouhamadul Bachir Mbacké lil baax si turaas muridi kon sëñ Modou bismillah euh, ñëw yegg si sëñ bi jox la jaayisa bi sëñ Modou Sarr ñoo ngi leen ndokkeel sëñ Ahmadou Badawi waaw bismillah hmm? moom moo def calendrier bi sëñ Modou Fati Sarr euh, moom moo def liggéey boobu calendrier yu am solo yooyu moom moo ko def sëñ Ahmadou Badawi Mbacke jiite rawdu Rayaahiin moom moo koy jox jaayisa bi ànd ci ak xol bu sedd guy waaw kon mu mel ni jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf sëñ Modou yàlla na nga fi yàgg lool te suñu borom aar la ba nga yàgg defal ndam lu ndamul xam-xam lu mel ni ci dëkk bi tàll bii ndax lii pàgguteeku sëriñ Tuubaa la jërëjëf kon xam naa lu mel noonu day doon loo xam ne ndam lu defal dëkk bi yépp la mu doon loo xam ni ni sëñ Tuubaa ñaane xam-xam ci dëkk bi rek day firndeel ni ndaw yi dëkk bi buñ góor góorgóorloo ci xam-xam suñu borom euh, defal leen ci ndam lii nag académie bi dafa doon ay soññee yoo xam ne euh, day gën a xëcc ndaw yi ñu gën jëm ci xam-xam ndax bu amul benn acte bu ñu def luy soññee ci xam-xam su booba xam-xam day taxaw waaye saa bu defee luy tax luy soññee. ak luy woote ci xam-xam bu ko defee nan ñi danan ndaw jublu ci kon fa jazakumullah xayran kon ñu daal di jàll ci euh, waa duru nazim nga xam ne ñoom ñooy def xasida yu am solo yooyu te sëriñ Moustapha Jaxate jiite ko moom it mu ngi doon wax xam naa buñ ko mayee rek mu gaaral ci genn xasida gu gàtt xam naa buñ ko waxtuy mayee des na la defal loolu waaye sëñ Moustapha Diakhaté ginnaaw bu ñu leen jëfalee yéen ci liggéey bu am solo boobu ngeen di def mu doon liggéey boo xam ne ndawi Touba yépp it war nan la cee fekki sëñ Xaadim Diop ministre mu ngi teewee jitaay bu am solo bii moom it di ci ànd ak ñun moom la ma sëñ boobu doon fàttali sëñ Moustapha Diakhaté kon sëñ Ahmadou yi moom sëñ Fallou jiite daaira Rawdu Rayaahiin moom moo la jox jaay sat Cheikh Mouhamadul Bachir lil bahs fi turaasil muridi ci seen liggéey bu am solo boobu ngeen def ko yàgg def jërëjëf loolu exemplaire la rek bu mu yor ci seen liggéey bi kon sëñ Ahmad Badawi moom moo lay jox prix boobu di la gaaral rek di la wax ni lu sedd xol sëñ Muntaxa la ndax tur yi nga xam ne ñoom lañu jox prix yi fii bala ñu ko joxe tur yooyu dañ leen dem gaaral ko sëñ bi ba sëñ bi xam ni tey jii ci heure bii nii sëñ Modou Sarr ñu ngi koy teral fii ci jumaa ji waaye sëñ Moustapha Jaxate ñoom ak waa Dóorlu Nasim ak li ñu ji liggéey ñoom it sëñ Muntaxa mu nga yëg fa mu toog ni ñu ngi jaxate waaw sëñ Moussa dañu ne rek xam naa nga seet xasida bu gàtt rek nga gaaral ko ci feeñal mu yéene ci bismillah mën ngaa ñëw toog أعوذ بالله من الشيطان am mbégte bu baax ci teew ci jotaay bi di ziyaar kilifa yi fi teew yépp comme waxtu yi dafa xat ñu am mbégte bu baax ci tànn gi académiyatul minan tànn ak durru nazim boole ko ci ñuy jox euh, jawaayis yi kon ñu ngi teewoon ànd ak sëriñ soin bu jaxate moom sëriñ Yaas ak sëriñ Cheikh jaxate moom sëriñ ak sëriñ Masamba Xuma moom di jàngalekat alxuraan fii ci Touba euh, ci liñ doon waxtaane léegi ci sëriñ Mouhamadul Basir ak xam-xam day tax ñu tànn xasida goo xam ne kenn ci njabootam di Cheikh Abdul Ahad Mbàkke moom sëñ Ibrahima moom sëñ Muntaxa moo ko def muy participation ci duru bi kon xasida googu la ñuy tànn gaaral ko mbooloo mi muy lenn rek doon misaal ci liggéey bi nga xam ne ab duru nazim ñu ngi ko yamale kon Cheikh Abdul Ahad Mbàkke moom sëñ Ibrahima moom sëñ Muntaxa moo wax ne madiha xadimil Mustafa sayyidil arda ida salima almaxquulu yaxkumuhu farda faqad kaana diinullahi min qablu baakiyan wa maxfuwa rasmin yansani rafmuhu xafda shada xaaluhu hetfan mata nasru qaa'ilin ala inna nasra allahi fi dikrihi arda fa anqadahu da shayqu naafiya zulmihi muniilan lahu ltajdida wannashra wannahda wa allama afwaajan wa awsala kummalan wa shayyaxa ahzaaban li rabbil wara mahda wa ramma nufuusan muslihan kulla faasidin wa rabba quluuban kaana asxaabuha marda fasaadat ala dahri al adaalatu wal huda wa zahzaha su'an murdiyan kulla zi bagda wa baata bihi za diinu lam yaxsa jaahilan wala aaliman lin nafsi yanqaadu wassarda falam yaxsi aqlun laa wala al addu filakum fa kayfa waxad amma alsamawati wal arda liza qaala fiika alfaxru walmajdu walula mubaarika xumrun maaridun yassali ramda talaqayta min rabbi mazaayaahu jammatan wa min tilka ann alkawna fi yadikan qadda wa axdamta xayra alxalqi maa gaaba an siwa ilahin lakum da'ban awaarifuhu afda wa laysa tafi lusnun bi usri sanaa'ikum fa duunaka fikrun fanfiraadukumu yuqda wa qaala lakum maxtaara maa daama xayrukum yuwassiu danka alaysi mawlaaka munfadda wa salli ala almuxtaari walxurri rabbi raadiyan xan xadiimi lmuntaqa albaasiri arda asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ginnaaw bi ñu santee yàlla maanaam um, mën nañoo xam lépp xam ne tuuti rek ci liggéey bi nga xam ne liggéeyoon nañ ko ah, dafa am ñun ko bokkandoo doon ko liggéey muy téere bii nga xam ne ni Sëriñ mun moo ko wutuloon aw tur ca bañ ko defee ba noppi ca xam nañ ne ñun ab ëllëer lañ am astafurlah ab gopp lañ ci biir tool bi ab gopp li tax ma wax ne ab gopp lañ ci biir tool bi nag gopp dadul ndaw mbayam xañ na boroom gopp bi rek moo neexi wagg mooy sëriñ bi daal moo neexee wagg ca loolu xam nañ ci lu wér a wér a ndax téere bii bañ ko njëkkee yóbbu sëñ Muntaxa am na ci loo xam ne defuñ ko woon te loolee ba ñu sëñ ba ñu sëñ Muntaxa laaj ne ndax nangamay ngi ci ñu ne ko mën nañ ko bañ demee lañ ko man bañ ñëwaatee ma ànd ak sëñ Muntaxa mii buñ ñëwaatee lam ñu waxaat bañ demee lañ ko man ca ca amu ci lenn luñ mënoon ca jotaay ba nag ci kon xam nañ ne borom xam na xam ñun xam nañ bu wér ne euh, borom borom gopp moo neexee wagg Euh, ñuy gërëm itam ñëpp ñi xam ne ñoo ci ànduloon mboolem signature yi nga gis ne signé woon nañ ko ndax téere bi 2012 2012 lañ ko defaroon ànd ceeg sëñ Moussa jiite ma le moo moo moo ordinateur bi ñu koy defar signature bi signaaru sëñ Muntaxa la bii sëñ Moustapha bii bii sëñ Mamoun Bousso la bii sëñ Fallou sëñ Abdou Khadir bii sëñ Moustapha Diatara bii sëñ Abdou Samad Bousso nelaw bii sëñ Fallou moom sëñ As Guédé sëñ Modou Mamoun Niang ko nii bii sëñ Abdoulaye sëñ Soyibu la bii sëñ ah, sëñ Maamooru sëñ Fàllu bii sëñ Modou Lo mii toog moo ko def waaw bii sëñ Daam Jaane moo ko def bii sëñ Afe bu su Moxtaar bii Maamoor moo ko def xam sa diine bii sëñ Seexuna Abdul Wudoot moo ko defar bii sëñ Seexuna Lo moo ko def biñ ko biñ ko bi nga xam ne defar nañ ko gaaral nañ ko ci ci ñoo ñëpp téere bi nag dañ koo tàmbalee woon xama saraxin dëppale ko ba deux mille ba deux mille cent dëppale dëppalee taarixu hijri ak taarixu milaadi waaye fi mu nekk nii euh, ñu ngi toll ci dëppale ko tàmbalee ko ci euh, année ba jëkk ci milaadi ci ci hijriya doonoon 622 fi mu nekk ci loolu lañ nekk pour dëppale ko ak téere bi lépp juddoo Tuubaa moo ñu ci neex bi nga xam ne nii moom bi bii nag moom euh, calendrier gréco-romain bi la moom dañ koo tëkk ci adat sabax sajam xadaw ja ja ja waaxil xilbul falak di wax ne moom moo tënk calendrier gréco-romain soo su fekkee xam nga lool rek da ngay daal di mën a xam bii bu baax a baax waaw kii diggante bu nekk vingt cinq ans lañ ko def lii lii doon tàmbalee ci l'an 1 ba ci 2175 noonu lañ ko defee nii loolu lépp nag sëñ bee neexe wagg rek waaye daanaka moom du du ci ñun bii nga xam ne nii mooy safa saqima yi itam liñ ci jubloon mooy dafa am ay professeurs yu nekk université yoo xam ne dañuy gëstu ci wàllu garab ñoom dañ koo doose def ko def ko ba noppi nag ñu bind ko ci weneen làkk làkk woowee nag ñun ñu bëggoon koo xamal waa daara ji moo tax ñu def ko ci làkku daara ji ngir defar téere bi gannaaw ba ñu téere bi nag ñu gisoon Abdul Fattah Tuuxi yu téere bu ñuy wax euh, euh, Shahaadatu Hindisiyya bari na fii ci Sénégal ñu koy jëfandikoo ci wàllu seet ak yooyu ma daal di jël na na ko Abdul nose woon man nose téere bii noonu mu nekk ci wàllu faj noonu la noonu xam seet bi indisee rek mën a jëfandikoo bii beneen safa saqima bi ma def safa saqima ñaareel bi nag li ma ci jublu woon mooy damaa déggoon mokkaloon ay bayit ca bañ gënee doon ndaw suñ seex caane moo ñu ko joxoon bayit yooyu ne ñu garab yi saxoon ci jumaa yi Tuubaa jii la di fi jumaa ji laataa nekk sëriñ bi soxla fi kër ne bañ daggee garab bañ ñuy dagg garab yi sëriñ bi sëriñ bi dafa waxoon ne nañ ko taarixalkat ngir ëllëg ba mag ñu waññee garab yi muy fanweeri garab ak ñett sëriñ Moussa Ka moom daal di toog way ko daal di wax ne bébun newun gigisun kàddun daqaarun wa féex sumpun xureelun wa xël ron rab-rabun geeru dimbun wa déemun wa loorun soona neb ne boo haa séngun mi bente ñi haarandun bi darka sa yiiru ratun wa wuulun wa guyun gang wa bay keleha faftan wa wel sawat saab-saab hakka saa biir noonu la ko sëñ Moussa Ka léegi nag ci sama biirub gëstu nag ma ne garab yooyu nga xam ne moo soxoon fii ci jumaa ji kon ay njariñ war naa bari lool kon garab yii téema cee gëstu waaye moom cee gëstu nag wax dëgg yàlla uma fanweer ak ñett ñaar fukk yi ak juróom-ñett laa am ma doyloo ko daal di ko defuk téere waaw noonu la téere yi té mboolem liggéey bi ñu liggéey noonu la noonu la tëddee ci sàkku ak ñaan bu baax a baax bopp bi daal mu ngi sàkku ak ñaan ñu gën koo dagg yi gën koo xaj ndax léeg-léeg mu léeg-léeg du mën a dagg am ñax am borom bopp bi rek moo neex ay wal waaw man nag Modou Faty Sarr ji li ko ci indi mooy sama way jur suñ moo duggay jëmooy la ma tuddee ak soxna Faty ndax taawub sëñ moo duggee jëm mooy moo jur sama way jur mu jigéen mu boole ñaar ñëpp tudde moom jërë ngeen jëf mbokk yi kon loolu moo doonoon sargal bi segam waxtu wi dañoo dab nag xam naa li ci des euh, daa mel ni bareetul kon ci tëjtë ji rek lañ nekk waaye sëriñ Xaadim Diop ministre dañ koy jox kàddu suñ ci bàyyi ko jox sëriñ Cheikh Khadim académie Mbakh Khadim suñ ci noppee jox sëriñ Mouhamad Lo Ngaabu mu joxe kàddu su ko defee sëriñ Ahmadou Rafa yi ah, kon ñu jox sëriñ Cheikh Khadim Mbacke di fàttali rek ni téere bi jàpp ni na ci Daarul meneen xasaayit ci koñu kër sëñ Basiru gii dend ak jumaa yi eh, ak ci dëkk bi jaaykati téere ne ci dëkk bi fu ñu dem danañ ko mën a am te li ñu koy weccee it yomb na lool ndax sëñ bi moom tasaaro gi rek moom moo ko ci yitteel mu tasaaroo rek moo ko ci yitteel euh, ginnaaw bu mu ko bindee ba noppi. maktabatu Cheikh Mouhamadul Bachir bi it ñuy fàttali di wax ni euh, sëñ bi da ko fay def rek ngir mu nekk jariñu dëkk bi kon gëstukat ak jàngkat yi na ci dëkk bi na ni ñëw ci maktaba bi sëñ bi euh, saa su nekk yéeneem da gën di feddaliku ci nus ci jariñoo ba tax muy jënd ay kilim di ko fay indi ngir ñi ñëw di jàng si buñ toogee mu féex ci ñoom loolu it saa bu ngeen ñëwee sëñ Moustapha Dieng ma ngi fay saytu saytu bu am solo kon ñu jox sañ Cheikh Khadim Mbacké euh, mi nga xam ne moo jiite académie Minane Ba moo joxe ay kàddu. alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin wa aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mboolem ñi fi teew ak ñuy topp ci attante bi ak feneen ñu ngi leen nuyu nuyu ba gën a sell di leen jot li ñu sëriñ Mouhamadul Mountakha mi nga xam ne moom lañuy ñuy moo jox ndigal ñuy ko di ko liggéeyal fii tey liggéey rek di liggéeyal sëriñ Touba comme ni ñu waxee académie bi loolu ab daayira buy liggéeyal sëriñ Touba ci xam-xam kon ñu ngi leen nuyu nuyu ba gën a sell te di jiital suñu kilifa yi toog di nuyu nuyu ba gën a yàlla ci ñoom di nuyu mbooleem borom xam-xam yi fi teew waaye di nuyu bu baax conférence yi suñ ñi nga xam ne ñoom ñoo waxtaanal te waxtaan waxtaan ñu am solo dañu Saliou Salaam docteur Alaye Ndiaye am na lu ma dégg loo xam noonu laa suñu taxaw yi nekk bu yàgg ne dafa am ministre boo xam dafa demoon ba Tamba. bindub bindub discours am bëgg a waxtaan eh, dem ba dara du ci lu wax rek mu lam lampoos yi dajul dara mu naan Tambacounda naar waaye dafa mel mel noonu moo ma xaw a dal li ma bëgg li ma bëggoon mooy nuyoo bu jotal boo xam ne ñu ci war a sant ñëpp danañ leen sant leen ci sant ñu ci war a tudd ñëpp nañ leen ci tudd waaye nag loolu moo ma dal ba tax na maa ngi am yéene di nuyu ñëpp nuyu ba gën a sell bàyyi bàyyiwuñu kenn nag te lépp ñu koy def ci lu sëñ mu jaar na ko ci turu académie bi ak mbooleem ñi nga xam ne ñoom lañ bokkal académie bi waa lajatu almeer bi ñu ngi ci te sëñ Seexuna Abdou Ndour mi jiite ko waa lañu lañu sakaafa ñu ngi ci te sëñ Moussa Abbas ñu bokk doon ci kenn waa jàkk ji nga xam ne sëriñ Fallou Dieng mooy mooy njiitul mun na sëriñ bi def mooy njiitul ñu fi liggéey sëriñ Muntaxa Jaw ñoom Muntaxa Njaay Gabon ak rakkam ji fi nekk ñoom ñëpp ak mbooleem ñi nga xam ne ñooy jàppale ci organisation bi di leen nuyu itam ci tur sëriñ Mouhamadou Abdullah ndax bu fi nekkoon mooy koy euh, tëjal wala mu joxe kum ku mu ko jox na mu ko daan defee kon daal ñu ngi nuyu nuyu bu sell bàyyiwuñu kenn di sant média bu baax itam nag moo xam ñu nekk internet bi la moo xam ñu nekk rajo yi la moo nekk télévision yi bu ñu waxee sëriñ Moustapha Ndiaye ak mboolem ñi nga xam ñu bokkal nekk fii ci bi waaye sëriñ Omar ñi nga xam ne moom lépp lu ñu dégg fii da koy teg nañ def nañ ko bëggee sëriñ moo taala télévision làmp Touba TV ak mboolem site internet yi nga xam ne ñu ngi Touba Vision euh, info ak mboolem ñi nga xam ne ngir mi daf leen a yitteel yu di ko topp duñu ko jàllaleel ndax lii am njàngale rek la njàngaleem njàngaleem Serigne Touba rek lañuy fas yéene di ko euh, tasaare di soññ itam ñi nga xam ne ñu ngi yëngu ci xam-xam ñu leen ci sargal ak leen ci soññ loolu rek moo ñu tax a jóg kon ñi nga xam ne ñoo ñuy jàppale nag bañ mën a liggéey liggéey bi itam. te di ko def ñoom itam ci wàllu finance ñoom itam fàttewuñu leen waaye nag borom liggéey bi kenn jiitu ko ci moom sëñ Mouhamadou Mountakha sëñ Mouhamadou Abdoulah ak mbooleem ñi nga xam ne ñoo nekk Touba fàttewuñu leen eh, Maodo Moudou Sourang eh, Touba Mbaye Bassirou Gueye ak mbooleen ñi nga xam ne ñu ngi jàppale ci dëkk bi waaye duñ fàtte ñi nga xam ne ñoo nekk Italie mu Minel Baye Khadim ñoom itam lépp lu fi mas a yónnee te jaale ko ci Moussa Dieng jot nañ ci ñi ngi duñ fàtte mukk waa Ligue Sambour yéen di xam lépp lu ngeen mas a yónnee te jaarale ko ci Serigne sëy ni ciy def ba dañuy def alali boppam fàttewuñ Bachirou Diop Granada ak effort yi muy def yépp ngir mën a dajale loo xam ne ko mën a yónnee fii waaye lépp loo xam ne yéen ko yónnee na ngeen xam ne jot nañ ci ñu ngi leen di sant bu baax a baax xam naa ne bëggoon naa mu yaatu lool waaye loolu mo loolu ma wax njëlbeen ngi rek mooy li ma dal kon liñ ciy teg mooy di sant mboolem ñi nga xam ne ñoo fi teew si ndax jotaay moom ku ne gis na ni ko yitte ji ko nit ñi jox di ko ànd ak ñun bañ ko tàmbulee ba léegi 2002 yàlla daf cee dafa dogalaat loo xam tam ndax bañ ko 2010 bañ ko njëkkee def yàlla dafa dogal te sëñ Saliou Sala am boo xam ne yaakaar naa moo ko doon def te sëñ Ahmad Baro ak sëñ Ahmad Faye boo teewoon teewoon nañ ko te bañ demee di ko wax sëriñ Muntaxa eh, day fàcc sëñ Ahmad Baro yi di di ko di ko wax tax taxawaay yi muy taxaw ak nit ñuy taxawoo la ne ah ñooñu def fu ñu teew man lañ fa teewal fu ñu teew sama xel dal na fa seen yëf la kon loolu at mu jot ñoom itam ñu di ko gën di dëggal di ko gën di feddali ndax seen seen teewaay ñoom ñoomoom jotaay bi sëñ Mouhamad Lo moom man dama koo jëlle moom itam na xam ne moom jotaay bi waaye ñu ngi sant boo leen euh, ñi nga xam ne ñoom ñoom bokk ak ñoom sëñ maam euh, sëñ sëñ Bachir sëñ Mamor sëñ Muntaxa sëñ Bachir ñi nga xam ne ñu ngi jógee ba ba Njaareem ak mbooleem ñi nga xam ne ñëw nañ teew ku ma tudd ak ku ma tudd sëñ euh, ku ma tudd ak ku ma tudd ñi ma tudd rek dañu yóbbaale ñi ci des ñëpp kon daal ngeen xam ne daal maa ngi sant ñi ngi ñi ngi sant académie ah, ah, mi ngi sant ci turu sëñ Muntaxa cant gi gën a mag leen sant yéen ñëpp mbooleem ku fi teew ak mbooleem ku fi daan teew xam nañ daal seen yitte yi ngeen yi ngeen ñu sédd te nag bu ñu wootee woon gisuñ kenn dana doy waar lool waaye nag teew gi ngeen teew euh, seeral na suñu xol lool sëñ Xaadim Jóob moom itam euh, dafa bokk ci académie moom yàgg cee sonn lépp loo xam ne waxtu wu nekk mu ngi def alalam di ci di ñëw di teew si te xam nañ ne amul jot ndax liggéey état la yor kon moom itam ñu ngi koy sant bu baax xam ne ne yëf yëfam la Euh, ak mbooleem mbokk yi nag ndax buñ bëggoon a lim kon day aaj ñu lim ñëpp te loolu mënta nekk waaye ñoom ñëpp xam nañ ne ñu ngi ci biir mbooleem ñi fi teew ñu ngi ci biir mbooleem ñi siiwul ci internet ci ñu biir maa ngi ñu sant ñëpp di gërëm ñëpp tudd naa ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërë leen yëpp kon ñuy jox euh, sëriñ Mouhamadou Lo aousu billahi min aseytaani rajim bismillahi arrahmani irrahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisaani yafqahu xawli bokki jullit yi fi teew ñi ngi leen di nuyu di leen siyaara ci weeru mag wi di saxru ramadan mubarak di jiital ci nuyoo bi ak siyaara bi sëriñ muhammadul muntaxa ibnu seex muhammadul basir moom mi nga xam ne mooy njiitul pénc mi ak barab bi di ko ñaanal suñu borom tabaraka wa taala mu yàggal ko fi te yàggal no fi te boole nu may ak wér di nuyu sëriñ Mohamadul Abdullah mi nga xam ne mooy imaam bi te jiite liggéey bi ànd ko ak i rakkam sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacké moom seex Mohamadul Muntaxa di nuyu bokk yi fi teew yépp ñu man cee tudd sëriñ ahmadul badawi ak sëriñ ahmadu rafaa yi di waa kër seex muhammadul fadil ñuy siyaara bokk yi fi teew yépp di rafetlu jataay bi ak doxin wi di rafetlu itam kàddu yi nga xam ne jib na fi yépp ak li nga xam ne ñaari conférenciers yi wax nañ ko fi muy leeral lenn ci li nga xam ne mooy téere bii nga xam ne sëriñ Seex Ahmadu Mbàkke bind na ko téere bi bërki démb jot nañu ko yëraguñu lépp waaye li ñu ci jot a gis wane na ne ku ko yër bu baax danga xam lu bari ci dundinu Seex moomadul Basiir ci ay jaar-jaaram ak i jëfam ak i meloom ci wàllu xam-xam ak ci wàllu diine ak ci wàllu tarbiya ak li nga xam ne bind na ko ak li nga xam ne lépp daana ko jëf ci biir diine ji ak yoon wi muy loo xam ne dafa am solo lool ci bu fekkonte ne kër yépp roy nañu lu mel noonu mbind di fa génne dana mel ne kon lii nga xam ne moom lañuy jàmbat ci jamono bi muy wàllu référence muy royukaay yoo xam ne dafay bëgg a ci jamono bu boobaa mbind yooyu dana ci delloo si lu bari kon loolu lu mat a yaatal la moo tax sëriñ Seex Ahmad Mbakke ñi ngi la ci ndokkeel bu baax di la ci ñaanal yàlla mu yaatal ko te yaatal say kem ci waar wi ndax ku ne xam na ne kilifa yu mel noonu jamono toll na foo xam ne lu mel ne ki mbind rek moo mën a delloo si seeni jikko ci mag ñi man koy nafar di ko jàngal ndaw ñi ndax loolu rekk moo mën a sowe société bi ci jamono bii nu toll ndax ñoom li ñu jëfoon jëf la joo xam ne mënee su yokk mënee su caa wàññi ca la nga xam ne lépp diine soxla woon na ko te suñu boroom gërëmoon ko ci ñoom loolu kon melokaan yi la yoo xam ne mas nay mat nay gëstu mat nay génne mat nay fàttali ñépp ndax yoon wi nga xam ne mooy yoonu morit kenn ku nekk dégg na ne am na ñuy wax ne bindkat yi taxul mu bari lool wala su fekkee am na itam ñi ci ëpp dañuy bind di denc waaye kon nag dafay wane ne génne ko dafa jot ca tasaare ko te yaatal ko ba ñi ci war a jot ñépp jot ndax sëriñ Tuubaa moom ku ne xam na ne mànkilewul dara waaye ay niti xam-xam moo ci ëpp ñi nga xam ne ñii géeju nañ ci wàll yépp foo fi jeex ci biir yoon wi da nga fa fekk loolu kon nag li ci des rek mooy yaatal ko te dundal ko te lawal ko te it kilifa yi nga xam ne nag ñoo nekk ci ginnaaw ndaw ñi ak ginnaaw gëstukati xam-xam yi ñoom it ñu seet wàll wa nga xam ne war nañ leen caa jàppale ñu jàppale leen ca te taxawu leen ca ndax loolu rek moo ci des ndax ñenn ñu ne fa ñu toll la leen ca yàlla man loo ña nga cay góorgóorlu waaye nag dafa laaj ak jàppale goo xam ne bu ñu leen ca jàppalee lu tuuti tuuti rek mbir mi dana gën a yomb kon daal sëriñ bi comme jataay bi xat na ah ñi ngi nuy ñëpp di leen siyaara di ñaanal mboolem ñi nga xam ne ñooy taxawee jataay bi te sëñ Cheikh Ahmadou Mbacke mi bokk ci ñi ko jiite liggéey ci liggéey bu toll nii kon kenn ku nekk war nga ci soññ di ci soññe kon yàlla na leen ci yàlla defal ndam ak tawfiq di leen siyaara di leen bàllu àq wasalaamualeykum wa rahmatullah jëf sëñ Mouhamadou Ngaabu kon ñu jox kàddu gi sëñ Ahmadou Rafaay mu tëjal ñu jitaay bi ñaanal ñu bokki jullit yi bokki taalibe yi asalaamaaleykum wa rahmatullah noo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel ci weer wu tedd bi ak barab bu tedd bi ñu nekk yàlla nañ yàlla nangul suñuy jaamu yàlla ak suñu koor te ñu bañ te bañ ñu ko wan eh, li ñu fi jota taataan nag eh, suñu xel dal na ci dal goo xam ne mënuñu koo tudd ci làmmiñ donte sama xel mu dal ci mbir tekkiwu ca dara waaye daal yaakaar moom ju tegu fu wér ñu ngi koy wéy di am ci diine ji rawatina ci wet gi nga xam ne ci lañu nekk ndax yi ñu fi junj yépp lu ñuy tudde jéem la jéem nag mooy tax a man te amut ay at amut euh, waxtu wuñ ko war a tàmbali am na ku bind doon ca waare di wan nit ñi ñàkk gu àdduna ñàkk solo ak fëx gu nit war a gaaw fëx jëm ci li ko fi taxoon a ñëw mm, ñetti bayit la xaw xamaguma nag ka ko way kum doon waaye bu yàgg yàgg daal lañu ko wattu woon daf caa wax ne saa su nekk dañuy gën di jege suñu dikk suñ koy gën di jege nag kon ñi ngi dox di jóge fañ nekkoon ku jóge cib dëkk jëm cib dëkk lu dox ba yeex yeex ginnaaw ma ngay dox rek ma ngay gën di jege fa jëm daan ne fu mu toll fu nekk nag ak lam fa war a def na gaaw def ko ndax day jàll dal di cay teg ne dara yeesut ëppal di kër këri ci lu ko jarut ndaw moom jëlale naa ko waxuma laa nag ku ak mag gane ji ndaw moom daa war a gaaw bañ a xaar kenn ci lu war a def bañ a xaar lenn ci lu war a def te loolu feeñ ci jotaay bi lool ndax yii ñu fi jot a dégg suñ ci jàppee tuuti rekk lëf mën naa feeñ loo xam ne ci suñ biir lañ ko amoon ndekete te xamaguñ ko woon te taxawaay bi nga xam ne académiatu minal baxil xadim mi ngi koy def jéego yu am solo la bayit yi bala ma ko fàtte mooy dafa wax ne nasiru ila al ajali fi kulli saatin wa ayaamuna tutwa wa hunna maraxilu wa ma tafrita fi zamani siba fa kayfa bihi wa shaybu fi rasi naazilu taraxal an dunya bi zaadin min attuqa fa umruka ayaamun tuaddu xalaa'ilu mel na ni daal loolu tënk na lépp néew jumtuwaay teewut a mën a def dara néewi atit du lay ba nit dafa war a xaar ba nangam jële jóge ko fi wala mu jóge ko faa tànk yi ngeen def nag dox na jëm ci loolu bu baax a baax ma ci ton ma ci ne tonet rek yóbbante leen tuuti loo xam ne lu xadara bi soxla la muy ku ñu gëstul gëstu bu leer ni ko sëñ bu waxee baat bu mu wax tudd bu xam-xame nangam lu xam-xame gëstu bu xam ci jaar-jaar yi Serigne Touba yi ndax kat lu toll ne académie min al baqil bu nekk ci kër Cheikh Mahamadul Bachir yaakaar nañ ko ci ndax sëriñ Touba yàggagut kuñ naan moo jur kii rek yàggagut te lu ci bari boo ko laajee boo ko laajee fukki nit danga am fukki tontu yoo xam ne bokkuñu loolu it lu mat a def yitte la am na benn lu ñuy wax synergie boo xam ne ay cadres murit ñoo ko sëq xamaguma ba xam jokkoo gi demee demee gun na noona ak ñoomam déet waaye mbooloo moom ku nekk ma nga ca daanaka waaye biñ fi ñëwee ci màggalu Kazu Rajab ba ñuy waxtaan dafa mel ne manqué gun nañ ku ñu mën a gëstul histoire ab bu ñu mën a jàngale ci suñuy jànguwaay ndax yamuy laaj ak yan lañ cay mën a génne ba mën koo bind ba mu mën fee des loolu soxla nañ ko lool ñu ngi koy diis académiyatu min al baaxil xadim ñu dimbali ñu ci ndax wax mi ngi jóge fu nekk di ñu wax lu ne ci sëriñ bi di ko waxee lu nekk ba doo xam sax ki jëkk a wax moom nga jàpp ay waxam wala ki mujj wax moom nga jàpp ay waxam nii ñu fexee dal ba siñ bee saar ànd ak ñim àndal liggéey liggéey bu mel nii bañ mën ca teg loxo maa ngi koy tooñ léegi sax maa koy wax naa ko maa lay jëw ñaare kuñ tudd ci murid yi wax ci ay ni may suñu borom yi boo ko seeni muy ñëw daf lay nuru am ñambar ñu baree bare bare lañ ñu ne gumm fi barab ak lañ yor ab recensement boo xam ne it kenn ku ci nekk lam log dañ koy xam lu tax mu ne call ak moom ndax ku log log logal lam log lumu wala lam ngoor ne mugg ak moom lu mu doon loolu itam lu mat a taxaw la ndax ku jóge fu nekk yor lu nekk xam lu ne mu ngi ne patt ci dëkk bi ak lam yor te ginnaaw Cheikh Mahamadul Bachir cër bi ko yàlla jox ci yëngu ci xam-xam doxaat ngeen jëm ci nuñ ko suuxate deewul sax waaye dañ koy suuxat rek mu gën a lëw yaar yooyu daal soxla nañ ko recensement boo xam ne fenn ful waaye looge dara walla mu ngoor dara ne cell ak moom te ñu soxla ko soxla nañ ko ñaareel bi it ku ñu gëstul bu baax a baax ci jaar-jaar yi Sëriñ waa ca la ca xam-xam joxañ ne moom moom lañuy gëstoo loolu itam soxla nañ ko bu baax a baax génère si bi may wax itam xamaguma ko xam ko gi amagul naam deet waaye am nañu seeni contact te lañu wax ne moo leen tax a jóg mooy bépp lépp lu ñuy liggéey ci am réew te nit di ko soxla am nañ ca ay kàngam yu ca bokk waaye nag laaj naa leen laaj bi ba mu des ñu mën a gëstu jaar-jaari Cheikhul Xadim ndax kat nii muy doxee nii su suñ ko suñ ci tëlita jóg rek ñi ci kanam tuuti ñun ñi yëpp mën nañu nangu suñuy doom di nangu waaye fii ak l'an deux mille cent soixante-quinze yooyu muy wax ñam fii fekk mën nañoo am jafe-jafe suñ leen xettiliwul léegi nii tegal leen ci taabal ji loo xam ne lu wér wér lay doon ñu xàmmee ëllëg gi si biir ku ñëw di leen wax ñu mën a xam lañ cay jàpp te su boobaa sax kenn dootu mën a wax ndax bu ñu leen di dalal alxuraan ak di leen jàngal xam-xam jàngalaale leen ko dunduloo waale leen ko ca lay gën a yombe kon lu la bett mën na la man cant gi nga xam ne moom la ñuy sant man ak bokk yi nga xam ne ñoo fi nekk yépp mënu si ko tudd ci aw làmmiñ waaye dañ leen di wax rek la genn kilifa séqoon ak menn bokk daa ñëw jaaxle lool ndax dañ ko bëgg a génne fam lu yewoon ci juróom benn téeméer booba jamono wute nag léegi booba la këyit woowu ñuy wax suñu basiru di suñu dëgg mu ñëw fekk genn kilifa ca riidis ne ko samay tànk du dara lu dul dama gis nit ñi di fi dugg rek di génn ma xam ne ñépp duñ ay dof ma dugg ni ñoom juróom benn téeméer daal la yittewoo ndax fi ne bu ñu nemoon génn nañ la sa kër duma ma fekk dajale nañ fa ci ay ñuy siyaara ñu fi ñëwoon di mbooloo ba mat juróom benn junni yu teg mu ne ca texeet juróom benn junni jox ko mu ne ko lii ëpp na di waaw ah, sa sa wërsëg de jaar ci sama loxo mu ne ko noo tudd mu wax ko aw mu xool ko ba yàgg mu nakku gañ-gañ ne ko bàyyee naa la yàlla yéen itam nag bàyyee nañ leen ak yàlla yal na leen yàlla fayal boppam yal na fi yàlla yàggal Sëriñ Muntaxa te yàggal ñu ci ginnaawam assalaamu aleykum wa rahmatullahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما قد اشتهل رمضان المؤسم اللهم إن حبيبي وقليلي شهر رمضان قد اشتعل علي يوم الاثنين عام خمسة عذر وثلاثمائة وألف ورحبت به وسلمت عليه بهذه القليلة فتقبلها مني وبارك لي فيها